<laughs> d'accord mi ngi noonu alors rubrique actualité euh, euh, Aliou Sow balaa rek ñoo euh, dooree actualité waxtaane wàllum politique faaw ñu dugg ci ki nga xamante ne moom mooy El Hadj Sidi Lamine ndax moom rek je pense que doy na actualité tey mu am 5 ans ginaaw bu mu dëddoo àdduna lan nga ñu mën a wax ci moom lan nga mën a retenir ci moom ci loo xamante ne marqué na la ci jëmm jooj di El Hadj Sidi Lamine Niass. bon ce que je retiens de ce grand monsieur. ce ce grand érudit c'est que d'abord préciser que je ne le connaissais pas. Mmh. Je le connaissais parce que je le regardais parce que je l'entendais parler ce monsieur. Mmh. Et je rêvais d'être comme lui. J'avais envie d'être comme lui. quand j'étais jeune adolescent. J'en parlais. Je me disais qu'un jour, j'aimerais bien aider ce monsieur. lan lan lan moo taxoon nga doon rêve nekk comme moom lan nga gis ci moom lu la attiré li tax yow nga toog euh, jàpp ne kii kat bëggoon naa mel ni moom lan moo la attiré ci moom. parce que dama gisoon nitu dëgg la. Mhm. dama gisoon da doon wax mu mel nii comme euh, euh, man lay waxal. Mhm. je m'étonnais un peu parce que comme dama ko daan gis mu xees pecc mhm. man dama la xoon rek xëy na euh, naar yooyu jógee jóge Mauritanie gànnaar waaw ñoom ñoo ñëw Sénégal mhm. et puis am beneen état d'esprit di wax seen xalaat xaw ma woon sax ni waa Kaolack la je le voyais ma koy bàyyi xel di ko bàyyi xel euh, des fois ma fàtte yenn saa yi sax samay waajur ñoo ma doon fàttali ni da nga daan wax ni kii bés boo mënalee sa bopp da dem nga Sénégal nga dimbali ko. Mhm. hasard de la vie un jour euh, Awa Diop Ndiaye. Mmh. et Charles René ci via naturellement. Assane Gueye. Mhm. tax ma koy woowee le grand petit Assane. Assane macha allah. comme dañu ma daan invité ay actu en 7 quand j'étais à Dakar ñu xalaat ni xëj na peut ma ñëw pour def ak ñoom petit déj. Mhm. je me suis dit bingo. parce que mhm. voilà béréb bi nga xam ne man mosoon naa bëgg nekk ci wetu waa joojee. doon doog làqu. parce que moi suis arrivé à Walf deux mois après que Sidi Lamine Niass soit parti man xaw ma woon aw Diop Ndiaye xaw ma woon a René Fall ils ont dit que ni woo ma par l'intermédiaire de Assane Gueye parce que dañ ma daan invité fii nii mm-hmm. mais def ay actu en set ak yu kenn xamul mm-hmm. ay penco bu Pape Alé Pape euh, Ngagne Ndiaye bi mu daan def fii daan na ma invité aussi. incha mm, allah mais comme j' étais pas resté en France euh, au Sénégal donc dama daan delluwaat immédiatement. Mm-hmm. donc quand je venais je donnais mon avis je un jour j'ai enchaîné ñaari xaw ma lan Actu après Assane Gueye woo ma ne ma Awa Diop Ndiaye moo tax moo tax maa leen di bàyyi xel yow ak Charles René Fall parce que am na ñu bari ñu ëpp li ñu mën te amuñu possibilité wax ko fenn. ils ont eu ces bons réflexes là pour ça que je les mm-hmm. ñu ne ma kaay nga ñëw. xëy na dañu bëggoon nga jàppale ñu ci émission sangam bi parce que dañu xalaat ne boo ci ñëwee di ko di ci gën a góorgóorlu. Mm-hmm. eh ben je suis venu mais j' étais très content mais surtout que li nekkoon sama xol. Mm-hmm. mooy ñëw naa ci béréb bi nga xam ne. waa joojee tudd Sidi Lamine Niass moo ko moom il venait de partir. mais je m'étonnais un peu quand ci lu tax waa ji doon doog a dee. ngay doog a ñëw may doog a ñëw. lu tax muy doog a génn àdduna ñaari weer après parce que si la menace décembre la génn àdduna. Mm-hmm. man je suis venu en février. le 4 décembre. ma ñëw génn ñëw février te euh, euh, euh, comme ça. eh bien bu ñëwee je suis resté autant de temps ça fait ça va faire février juróomi at que maa ngi Walfadjri et je suis très fier. Mm-hmm. d'être d'être fille. macha allah voilà un monsieur qui s'appelle Sidy Lamine Niass boo xam ne moo tax des fois may toog sax di toog di laaj ay ñoom Sidy Lamine euh, di di laaj euh, Cheikh Diane Gomis mm-hmm. walla ñoom Penda Diallo ak ñeneen kilifa yoo xam ne ñi ngi jege woon Sidy Lamine ñoo xam ne dañoo maanu ma leen doon laaj Sidy Lamine comment il pensait mm-hmm. comment il était ce grand bonhomme ban jikko la amoon yan la daan wax yan la doon défendre est-ce que dafa amoon pété walla est-ce que c'est un homme qui disait juste la vérité ñooñu ay nit ñu maanu lañu mm-hmm. te dañ ma daan tontu tontu yu leer nañ par rapport ak man yëg-yëg yi ma amoon bi ma ko daan séen parce que dama ko daan séen mm-hmm. kon mois je ne que de ce grand monsieur li ma doon yëg ak li ma ay nit ñu maanu wax ci moom ñoo xam ne nag dañu maanu te xamoon Sidi Lamine Niass mm-hmm. jege woon ñoo xam ne du ma tudd seen tur waaye ñoom wax nañ ma kan moo doon Sidi Lamine te ñooñu nag encore une fois ay nit ñu maanu la ñu te amuñu benn intéret derrière kon ñooñu nag ak li ñu ma wax ak man li ma daan yëkk moo tax ma gëm ni Sidi Lamine nitu dëgg la woon Sidi Lamine waxkatu dëgg la woon Sidi Lamine Niass population ko intéressé woon mhm. mais la population sénégalaise dans toute son entièreté waaye ci wàllum injustice donc Sidy Lamine Niass xamuloon opposition Sidy Lamine Niass xamuloon pouvoir Sidy Lamine Niass li mu xamoon mooy lan mooy dëgg te lan mooy jub ak lan mooy solidarité ak lan mooy partage ak lan mooy influence moom capacité yu mu amoon a influence pour gën di faire développer eh, la justice dans ce pays là kon man gis-gis boobu la noonu laa gisee xëy na nag jëfi ni ak expérience beeg xam-xam bi ndax man dama zaayire mhm. waaye man dama gëm ni dama nuroog Sidy Lamine donte sama zaayere bi dina ma def ay manquement mhm, nen matu sax parce que am na yoo xam ne boo ko sori woon xañ xa boo ci sori woon xañ na ci Allah subhanahu wa xañ na peut-être mënoon naa permettre wax ni osé ni jege naa ko torop waaye ci gis-gisu àdduna je pensais à lui et je l'ai pensé il y a longtemps mhm. te wax dëgg yàlla man de leen rek laay def mhm. te leen rek laa ragal mooy alaaxira si la mi ñas ne ma yow li nga doon wax ci man genn wàll gi yëpp dara du ci dëgg moo tax képp koo xam ne da ngay wax ni Sidy Lamine lii ak lii ak lii la doon xalaatee wala lii ak lii la bëggoon boo koy wax na doon say aqulaay taala bu mu doon say intérêt personnel. Mm-hmm. parce que bu doonee say intérêt personnel ëllëg di nga ko tooñ te xamuloo ndax boo dajeek moom dina la ko baal. man personnellement je pense que nii am na lu bari loo xam ne nuróol naa ko moom. ndax ndax ndax ndax ndax ndax ndax ndax nit bu dëgg la woon. Mm-hmm. un arabophone un grand intellectuel qui ne parlait pas bien forcément le français mais bu amoon ay capacité ak ay connaissance ci réew mi ak ci àdduna wax dëgg yàlla pratiquement inégalable. donc mm-hmm. yàlla na ko yàlla yërëm si mu nekk. Euh, nit ñi ñiy topp ci ginnaawam nañu bàyyi xel ci moom. Mm-hmm. si Lamine Niass n'était pas un homme politique. c'était juste un homme vrai aux côtés des populations mais encore une fois je répète la population dans toute son entièreté. Mhm. Walfadjri Sénégal la ko moom. Mhm. Walfadjri nguur moomu ko. Walfadjri opposition moomu ko. Walfadjri dëgg le peuple est notre patron. Mhm. mais le peuple c'est qui. le peuple ce n'est point l'opposition. le peuple ce n'est point l'opposition et le peuple ce n'est point le pouvoir. le peuple c'est simplement le peuple c'est ceux qui sont fatigués mm ceux qui ont des difficultés de vie quotidienne mm -hmm. ceux qui justement sont malades et ne peuvent pas la se soigner la voix des sans voix qui ne peuvent pas parler mhm. et ñooñu nag ñi ngi boor bu nekk mhm. moo tax kuy wax sóoraale na ñooñu ñi ngi boor bu nekk et ce ne sont pas des gens forcément qui sont de l'opposition même bu fekkee ni opposition en général ñi nga xam ne voix sans voix la lu ci bari ce sont des gens qui dans des difficultés permanentes. alors mi ngi na la yàlla sàmm. Euh, euh, euh, comme ça se dit hein voilà. euh, Koumba Abdallah guddal sa fan au côté de njaboot te le garçon qui l'a remplacé ou les garçons ou la famille qui l'ont remplacé mhm. ñu fexe ba lu xale bi doon way nu mu tudd xale bi bi amoon kii bi laaga woon ci ay bët mhm. te mu sant mbay Euh, te mu làqu rek. Ablaye Ablaye Mbaye hmm. mu ne euh, euh, doon sa baay doon sa baay. Hmm. doon sa kabaay a gën. macha doon sa baay doon hmm. sa baay. doon sa baay moo ko gën. macha allah xaw ndax dégg ngeen li ma wax yal yàlla sàmm voilà ok borom Tuubaa jërëjëf donc Théo yow ay kàddu. li may wax boo xam ne quand même il a un groupe de presse qui a aujourd'hui fait ses marques ne tamit li nga xam ne mooy fàtte mooy loolu nag dama koy cest dafay protéger reporter am mhm. journaliste boo nekkee ci terrain ak lu la mënti dal day jël responsabilité am mhm. parce que li may wax nii dafa am loo xam ne souvenir souvenir bu may bu may fàttali bu boo xam ne dafa kii benn kilifa bu mag moo jóge woon Pikine di woo ko di ma clamé parce que lu may clamé mooy dama ñëw def sama sama sama kii li ma joxe yëpp information am na kooku woo ko téléphone mu laaj ko ndax li mu bind am na wala amul mu ne am am am na. Mhm. waaye lii mu ne déet loolu liggéeyam lay def. Mhm. yow kay soo mënee def mooy ñëw def tontu waa ji déplacé wu ba fii def ngeen di maamu délégation ñëw pour gis Ousmane Sène Ousmane Sène tamit répété ko la même chose waa ji xaw a jaaxle ne moom nan laa nekkee kilifa ak fi ma toll ak poste responsabilité bi ma ma déplacé wu ba fii Walfadjri ñu ne ma dangay dellu pikin sa reporter bi def affaire bi nga joxe sa réponse moom tamit mu dëggal ko loolu pour wane ne rek euh, laaj na ko ndax li nga li li waa ji wax wala am na wala amul ba waaju ki kii preuve boobu loolu dafa jafe parce que nekk nañ ndax nekk nañ ci ci jamono boo xam ne dafa doy waar. Mm-hmm. nit lu nekk la loolu moom vraiment. je tiens à le parce que loolu mooy mooy mooy mooy ki nga xam ne da ngay jox kii sa sa sa mooy sa respect mhm. si sa si say si say liggéeykat mhm. ci wàllu liggéey parce que liggéey bu fekkee ne yow war warmaloo sa liggéeykat ci côté au plan professionnel rek da fay surtout métier bu mel ni. Mhm. journaliste. voilà Gomis xam na li may wax ci loolu. voilà loolu sax Gomis bi euh, kon xamoon nga ko jege woon nga ko lool ñu bàyyi la rek nga nga àddu ci moom. waaw du ma ci kii parce que après dinaa ñëw ci lu bëre ci wàllu sport ci ak di Lamine. wax mais de façon générale rek. voilà de waaw waaw mais xam nga ñii wax nañu lépp surtout ba Théo Théo li mu wax yëpp lu ci gën a am solo mooy protéger euh, reporter am. Mhm. dégg nga protéger reporter am euh, dafa am benn affaire boo xam ne moo am. Mhm. Euh, y avait un des ministre des sports. Mhm. boo xam ne man bi may soog a commencé à la télé xam man maa ngi woon ci presse écrite bi fii Walf mais euh, ministre benn ministre sport woo ko ne ko euh, mais non mais ah Cheikh Tidiane Gomis day acharné sama kaw. Mm-hmm. léegi mun na ko ok d' accord Sidi dégg nga euh, Sidi woo ma Sidi ne ma yow lan nga wax ma wax ko man nii politique bi nga xam ne moom lay mëne du politique bu baax. ñu génne ba tax ne ko expliqué ko lépp. ba si yàgg nag mu jëlaat téléphone am woo ministre bi ne ko eh, eh, lii de moo am lii la Cheikh Tidiane Gomis wax mu ne ko waa loolu laa mu ne ko ah loolu gisuma ci acharnement tu as vu. donc xam nga eh, maanaam dafay moom day xool fan la dëgg bi nekk loolu la loolu la Aliou Sow doon wax dëgg bi lay xool dëgg bi. donc ce qui veut dire dafa nekk nit koo xam ne euh, vraiment da lay ma da lay da lay encourager yow da motiver ba nga xam ne yow da ngay ne non attends euh, ci kaw dëgg mm-hmm. dalay naan xoolal waxal defal yow sa jëmu bopp yow defal mm-hmm. dégg nga liggéeyal sa liggéey mm-hmm. yaa ngi liggéey normal nii nangam voilà surtout man moom euh, bon jotuma ko woon xam parce que li daal Aliou Sow moo ma dal bi may bi ma fi ñëw boobu génn àdduna mais macha allah jot naa dégg ci moom ni que maanaam dafa doon dooleel ay employé comme ni nga ko doon wax saa su ne bu xamee ni surtout da nga mën li ngay def daf lay dooleel gën la mm-hmm. bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xam ne moom nga nekk di def mu nekkoon nit koo xam te ne macha allah nit ku baax la loolu lañ mën a euh, seede ci moom ndaxte donte xamuñu ko woon mais lu baax loolu dégg nañ ko surtout nit koo xamante bi ñu ko doon seetaan télé tout le temps da doon xeex injustice bëggul woon mhm. euh, nit koo xamante ni dafay euh, salfaañee ak ak yelleef doomu aadama wala boog da doon xeex pour démocratie gën a ñoŋ si bi si si biir réew mi donc euh, lu ñuy defee moom mooy ñaanal ko vraiment fi mu tëdd gënal ko fu fu ñu jugee vraiment na ko yàlla xare ci àjjana firdawsi donc mi ngi noonu mu nekkoon koo xamante ni macha allah nit ku baax muy El Hadj Sidi Lamine Niass di ñaan yàlla ndono bi nga xamante moom la fiy bàyyi yàlla na ci yàlla def barke ak si njaboot bi yëpp waxee mën nañoo jàll ci deuxième point bi Aliou Sow euh, euh, wax ci li nga xam te moom mooy la la bataille de 2024 qui aura bel et bien euh, lieu ginnaaw bi nga xam te ne président Macky Sall jot naa signé décret bi nga xam te ni moom mooy fii na ni que élection présidentielle yi dina am incha allah Aliou Sow. waaw décret bi ñu signé le 29 novembre démb lañ ko xam. officiellement que nii démb lañ ko wane. Mm-hmm. xam naa dafa doon jaar ci circuit yi ba mu officiel. léegi nag lu olof yi doon wax xëy na wure ba euh, dem na dem na këng mm-hmm. ñu doon wax ni élection du am ak dina am on a polémiqué pendant un certain nombre de temps dessus alors que encore une fois il y avait d'autres choses sur lesquelles on aurait pu justement échanger surtout par rapport ak programme bi waaye dina dem ak du dem dañ ko war a yóbbu duñ ko yóbbu il faut ñu arrêté kook wala ñu pousse kook wala ñu machin négociation euh, encore beneen beneen dialogue lu nekk dégg nga ko. Mhm. le meilleur dialogue boo xam ne moo war a am fu ñu toll nii d'ici boobu mooy ngeen ñëw dialoguer ak population bi yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg jiite réew mi ngeen wax population bi lan moo fi xew au jour d'aujourd'hui. Mhm. quest se passe. dans ce pays est-ce que dëkk baa ngi dox est-ce que dëkk bi doxul est-ce que am na yu ci avancé est-ce que amul yu ci avancé yi ci avancé nan la ñuy def pour mu gën a avancé yi ci avancé wul ana lu tax avancé wul et qu'est-ce qu'il faut faire ñu dem ci wàllum économie dem ci wàllum institution ci wàllum politique ci wàllum justice dem ci wàllum santé dem ci wàllum éducation toog waxtaane ko teg lu leer nàññ waaye pas teg juste rek parce que dañoo am envie teg parce que booy teg di nga xam lan ngay teg teggi hmm. te pour nga xam li ngay teg gi il faut nga xam lan moo fi nekk te war nga ko nga war koo teggi te boo ko tegee lan nga ciy teg loolu bés bu leeree ci population yi dina sentir ni avancé nañu ndax Sénégal ki démb la ñu ne on est 18 million plus de 32 mille nga yokk ci 32 000 et plus d'habitants kon mun nañ ne dans cinq ans dans dix ans on tournera autour de vingt cinq millions de Sénégalais au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire avec la problématique de l'emploi parce que dundu yeew euh, juddu dundu màgg liggéey retrouver sa dignité ba bés bi la fi yàlla di jóge dund dafa gàtt. te booy dundee da nga war a am le temps pour ñu defar la mettre ci ay conditions yu lay retrouver sa dignité nga liggéey am njaboot am lu nit war a am muy góor muy jigéen am njaboot am jëkkër am jabar am foo dëkk am loo sol am loo lekk am loo naan am sëy minimum de confort que j'appelle le minimum incompressible loolu nit daf ko war di am bu juddoo bu ko amul ça veut dire qu'il y un échec patent un échec na ci dundinam te loolu ñaar la ñaar la moo tax mu mën a dal nit ki ou alors nit ki dafa mënul dafa capableul dafa am ay insuffisance dafa am ay anomalie ci xelam ci yaramam ci kàttanam ci faiblesse am ou alors dafa am ñu ko ko teg te ñi ko ko teg mooy ñi tegul ay conditions pour loolu mu mën a nekk pour ñi nga xam ne am nañu kàttan ànd ak seen xel am seen xalaat ànd ak seen yaram ànd ak seen santé war a mën a dund même sax bu fekkee santé yi day fayir ñu mën ko defar ci yaramam faj ko. pour mu mën a taxaw war a mën a am liggéey war a mën a am kàttan wala mën a productif pour que ëllëg production boobu muy produit mu mun ko jëriñ jëriñ ak sa askanam ndax fu ñu dul produire foofu dara du fa meññ. donc je pense que ni il faut de te loolu fautu en général ñi leen di jiite la ñi leen téye ci réew mi ne ñoom dañu jóg pour pour pour def dara pour téye nguur pour mën a euh, euh, euh, rendre seen ngëneel mu meilleur te loolu loolu loolu kenn defu ko fi ci réew mi defuñu ko depuis vingt ans defuñu ko depuis trente ans dëkk bi day gën di yokk les populations gën di augmenter chaque année on a pratiquement trois cent mille nit ñoo xam ne dañuy jóg sénégalais pour di wut liggéey boo ko boolee depuis dix ans ci ginnaaw nga xam ni Sénégal kenn liggéeyu fi ñëpp dañuy taab taab dañuy taaba taaba léegi nag maintenant yàlla am na yu mu ubbi ci réew mi ubbi ay ressources fe leeralal ñu suñuy ressource ñun war nañu mën a dund normalement il suffit juste que ni li ñu am même bu fekkee ni dañuy leb parce que banque du lebal xaalis ku mënul fay mën nañu fay waaye banque bu la lebalee xaalis bi xaalis bi da nga ko war a dugal fi nga ko war a dugal pour que mu mën a produit ndax nga mën a fay say bor kon Sénégal war nañu am nañu ay capacité léegi pour euh, euh, faire développer le pays sauf que parce que respecté nañu am nañu ay moyens léegi crédible nañu ci àdduna bi ba nga xam ne lu ñu laaj war nañu ko mën a jox ndax mën nañu fay bori waaye bor yi ñuy jël fan lañ koy dugal ci réew mi dafa bari amul njëriñ mm. amul euh, fi ñu koy dugal baaxul te wax dëgg yàlla baaxul xamul lu tax ma ne baaxul am na fu baax waaye lu tax baaxul mooy dëkk bu nekkee ci ndóol nit ñi am ay problème ndóol boobu ñëpp dañ ko war a yëkk je ne peux pas imaginer ay nit ñu leb xaalis cim réew pour liggéeyal pour pour investir ko ndax mu mën a indi ay meññeefte ndax sénégalais yi mën ci profité ñii amul liggéey mën a am liggéey ñu créer ay entreprise loolu su mënul am parce que mm-hmm. tout simplement cet argent dangay jël une partie de cet argent di ko dugal ci ay frais de fonctionnement alors que da nga ko war a prioriser chez les populations ndax ndam ñëw ndax euh, euh, gànja euh, comment dire comme comme bi gën a gën a yéeg gën a mais bu fekkee na nga jël une partie de cet argent di ko dugal ci seen i frais de confort ci seen ay fonds communs ci seen ay avantages ci seen ay bon essence loolu mooy problème réew mi covid ba tey ji kenn nangu cee wax mais duñ si wax parce que tout simple <laughs> voilà mais parce que tout simplement moo tax ma ne la li ñu war a ci réew mi a des gens qui sont a des ingénieurs de mm. am nañ mais mais ana lu tax ñun ci réew mais ana tax suñu réew euh, euh, on n'est pas capable ñun depuis des années on le dit mm. ñun on n'est pas capable parce que en réalité lan la on a juste de produire mais fi ngay produire il faut nga am ko am nañ suuf. am nañ naaj am nañu juróomi juróomi dex ñun ñenn ñu ñun bëgguñu dara dañuy xaar rek ba yàlla wàccee taw ci diggante euh, euh, nawet ñetti weer ñu jéem a seet lu ñu am am taabal taabal après li ñu dem jëndi ko bitim réew. Mm-hmm. yow loolu ngay dem di jëndi bitim réew ay nit ñoo koy produire ci seeni entreprise ay nit ñooy dem liggéey. ñu fay leen ñu produire ay ay objet ak ay ay ay ay ay ay ay ay ay produits mm-hmm. indil la ko yow yow nga di ko jënd ñu lay imposer say prix alors que yow am nga ay conditions nekk nga ci ay conditions pour loolu nga def ko ci si biir réew sauf que il faut que nga am volonté yi waaye bu fekkee ni da ngay préférer dem jëndi lépp biti réew. loolu daf ñuy poser un problème te loolu dafa dañ candidat yi di ñëw dañu war a toog ñu waxtaan ci ngeen jéem seet ngeen tegal ñu lan mooy problème bi. te loolu du jur complexe ci biir société bi ndax koo gis léegi dafay préférer jënd loo xam. mais ñun ba léegi parce que dañ naan moo gën a baax. mais ñun la ñu soxla waaye mais c'est normal mais ñun mais oui euh, euh, il faut que ñu tabax ay usines yoo xam concurrence li ñuy tabax ci réew mi li ñu bëgg lekk ci ay qualité mais ñun ñu war na dem jëndi fromage te te di tuur ay litre litre meew chaque anne yoo xam ne mënuñu ko denc ñu war nañ dem jëndi ay diwlin ala ko euh, huile d'arachide bi moo gën ci diwlin ñu ñu indil huile bi bon bi di ko tuddee nu nekk di ñu ko publicité ñun waruñu ñun euh, euh, waruñu mën yokk yokk suñu production ci ci ci ci gerte gi am ay usine de transformation di am diwlin bu doy ba nga xam ne ñun dañ ci am ba mu doy parce que bu leen ma ne amuñu suuf mm-hmm. bu leen ma ne kenn mënu koo def bu leen amuñu ay système d'irrigation bu ne bu leen ñëw suñu nappe phréatique bi amul ndox ndox bi mën ko xëcc tas ko fu la neex wala nga ndoxu dex yi nekk ci réew mi yooyu yëpp war na mën a nekk te ay moyens la te moyens yooyu ngeen dem jëli bitim réew parce que crédit bi ngeen boo ko jëlee bitim réew ba pare ngeen dugal ko fi ngeen ko war a dugal te fi ngeen koy dugal muy doon quelque chose de transparent ñëpp di si teg seen bët ku nekk xam li nga war a def ku nekk li nga yeyoo ñu jox la ko ñu war a fay impôt te bari xaalis fay impôt ku yokkule da nga war a fay impôt cim réew ku yokkule ku yokkule da nga war a fay ku yokkule ku yokk étage beneen étage da nga war a fay nit bu nekk nga yor nga yor ay moyen yor patrimoine étage bi bu yokkoo say impôt dafa war a yokk étage laa wax benn étage boo ko tegaatee sa biir kër da nga war a yokk impôt mm-hmm. man ci yoon man ci sama gis-gis man ñetti oto boo ko amaatee ci àdduna bi topp yow da nga war a fay ay impôt waaye réew mi kenn du fay impôt ku nekk dangay ngay a xëcc ci sa boor il n'y a pas meilleur individualisme il n'y a pas meilleur euh, euh, euh, égoïsme que chez yi nga xam ne ñun ñu ne ay jullit lañu ñun pourtant dañuy bëgg di saraxe on bien saraxe parce que ça nous rassure pourtant meilleure façon saraxe mooy ñuy dimbali suñu mbokk jullit yi di partager ak ñoom parce que impôt boo koy fay mooy da ngay dimbali ñeneen c'est pour que xaalis boobu ñu dajale ko dugal ko ci ay santé on a pas le droit dans ce pays là de voir des gens qui sont malades tey li ma dégg dafa ma metti muy lan chaque jour mhm. juróomi nit mhm. jigéen dañuy dee ndax lan parce que dañu am euh, euh, cancer du col de l'utérus juróomi nit chaque jour léegi ma defal leen compte bi chaque jour weer bi fanweeri fan la en moyenne cinq fois trois quinze muy cent cinquante personnes par weer dix mois yi muy mille cinq cent personnes nga yokk ci yeneen trois cent muy mille six cent personnes en moyenne donc autour de deux mille personnes dinañu dee ay jigéen dañuy dee chaque année at bu nekk am na à peu près 2000 personnes ñaari junni ay jigéen yoo xam ne en moyenne dinañu dee parce que tout simplement dañu am feebaru col de l'utérus ñi am diabète kenn mënatu leen téye kenn du leen faj parce que dialyse bu nekk dix mille la. ñetti yoon nga koy def ci année ci ci ci semaine bi 3 fois 7 21 donc mille francs à peu ngay fay pour dialyse mais koo xam ne mënul fay loyer am 100000 francs man réew moomu man su ma si nekkee président de la république ñooñu dañuy faju par force xam nga lu tax parce que man 5000 litres essence yi ma leen di jox yéen ak man avantage yéen 80 millions yi ma leen di jox man si ay oto man dootoo leen ko dawale te tant que réew mi naatul. Mhm, parce que xam nga lu tax. parce que dafa am ñoo xam ne dañuy retrouver dañu war a retrouver seen dignité mhm. parce que waruñu dee parce que yéen seen confort moo tax mhm. il faut que ñu changer réew mi il faut ñu changer état d'esprit yooyu laay bëgg homme politique ñëw Awa Condé di waxtaan ak ñun ci loolu lan la ñu capable a def la solidarité dans ce pays là il faut absolument moom solidarité mais pas di dimbali ñu tayal pas ñu dimbali ay yaafuus ñëpp a war a liggéey xale yi ku leen xool chaque jour mais ay produits sur wàll yi jaay yàkkamtiwu ñu embouteillage am dañ ko yàkkam ci ndax ñu mën a jaay seen produit mën a yóbbu mille francs xëy na sax 1000 francs ci àll ba la jóge àll boobu ñu jógee ñu fa bàyyi ay suuf yu a def ay mbir yoo xam ne wax dëgg yàlla danañ ci lekk ba suur danañ ko jaay pour mu dem bitim réew ñuy am alal un paysan doit être riche ouais, le monde rural moom moo waroon riche te loolu amul ci réew mi parce que dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo akimoo alal bi alal réew mi ce sont les hommes politiques qui sont des milliardaires dans ce pays là te mu une situation vraiment c'est déplorant il la euh, changer euh, yow tamit ñu bàyyi la nga daal ci àddu mooy chaque fois ñëwoon nañ fii artisan yi da leen jox 15 pour cent commande publique mais demal bureau yi déjà rek ñoom li ñuy li agité ci affaire bi amul solo slogan la demal ci bureau yi bureau boo dugg meuble importé nga fay fekk. dëgg la léegi yow nan nga mën a ñëw ne da ngay def défense préférence nationale te yow loolu doo ko. exécuté ci artisan yi ngi defal lu rafet. waaw yow sa bureau yi moo meuble importé la. Mhm. sa dàll importé la yëpp importé donc léegi yow mun a boo fekkee ne yow da bëgg def loolu te à côté de cela. yaa ngi bàyyi ay ay ngay jël jus mu muy jóge extérieur jus bi nga koy importer alors ko yaa ngi bàyyi fii orange bi fii parfois Casamance mun dem ba nëpp wala mango bi mu dem ba nëpp alors que mun nga créer ay usine de transformation def leen ne kat da arrêté diggante diiru nangam ak nangam dangay ngay arrêté arrêté mooy maanaam euh, importation bi mm-hmm. pour nga mën a développer économie locale mais doo ko def. est-ce que kon jotul ñu a taxaw ci industrialisation bi. non moom laa la wax industrialisation bi il faut mu am une volonté politique. Mm-hmm. du wax kese du mm-hmm. slogan. Mm-hmm. da nga ko war a jëfee. te jëfee bi mooy lan mooy li nga wax da nga war a jël benn sa benn responsabilité sa souveraineté. ne kat diiru nangam ak nangam damay arrêté importer jiwu lii. jël sa produit locaux yi fii maa ngi affaire yooyu dee nga créer ay usines loolu dina générer ay emplois noonu ngay def. c'est que xam nga lan mooy problème bi gis nga Aliou Sow li muy wax nii c'est tellement important mais gis nga tant que ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def parce que fii am na ñu a def ay jus locaux mais a cher léegi yow bouteille bi nga ko importe ñu koy jaayee exemple 1000 francs jus locaux bi ñuy defar fi ñu jaayee ko euh, un litre bi 1500 wala 2000 yow tu préfères dem jënd bi nga a a cher moo leen war a dooleel mooy lan mooy si daal yi tamit mooy gën a cher. parce que moyens yi moo moo réunir mais mais xam nga aussi àdduna euh, il faut que ñu tolloog àdduna. Mhm. boo demee ci yenn dëkk yi ni ñuy defaree ay dàll. c'est différent da ngay gis ni qualité bi mooy ëpp doole parce que tout simplement ñoom matériel yi ñuy yor ñun yoruñu ko ñun xam-xam bi la ñu yor tey des fois xam-xam bi sax ñoo leen koy ëpp. waaye amuñu matériel bi moo tax da ngay gis ci ay finition dafay am ay problème mm. muy que ça soit ci meuble yi muy que ça soit ci meuble de bureau yi tout ce que vous voulez ñun des fois ñoo leen koy dàq mais parce que tout simplement amuñu les matériaux nécessaires ou les matériels nécessaires pour euh, liggéey liggéey bi ba nga xam ne ci wàllum concurrence dafay ëpp doole parce que aussi di jënd mbir boo xam ne baaxul wala da koy sol wala am problème après mu commencé di am problème en plus que c'est beaucoup plus cher loolu mënul nekk ci wàllum lekkin bi aussi c'est pareil ñun mais yéen mais man mënu ma ba tey ni meew meew meew meew da ngay nit ñi dañuy jël ay saaku meew dem jënd ko ci pays du du euh, dëkku dëkku dëkku tubaab yi bu ñu jëndee ay saaku meew ñëw tuddee ko seen i turu bopp. Mm. di ko def ci ay machine di ko jaay ne ne diw alors que ñoom à la sax maîtriser wuñu maîtriser wuñu sax meew bi xamuñu sax li si nekk dañ ko jël tuddee ko tur rek ba pare di door di ko def ay publicité def yoo xam ne man wax dëgg yàlla neexuma doon sama sago ñu tabax réew mi mais dëkk boo xam ne Sénégal cinq mille francs cinq mille francs moom pour kilo yàpp ki kilo yàpp kilo yàpp 5000. yàpp xaar kay yéen ngeen ay ñax am ay nag waroon am ay nag war ko sànni ci àll bi euh, ndox bi di. Euh, ñax yi di dem. Mhm. ngeen def culture fourragère di di am lépp. mais mais lu tax doo leen ko def alors que suuf si suuf saa ngi fi ni gàññi booy dem ci yoonu Touba bi da ngay gis àll bi nu mu nu mu leeree da nga naan mais fii nii li li li pendant juróom-ñeenti weer dara du fi am. mais loolu loolu. loolu nan ngay mën a toog di ko xalaat chaque année at di dem. mais vingt ans moo tax ma ne ñi fi nekkoon ci nguur gi xam man boo gisee maanaam ñeen ñëpp a yem man sama bopp rek laa ci wóolu mun na am yaakaar nag mais sama bopp boo leen gisee yéen li yëpp ci vingt ans yi trente ans yi ci fi nekkoon. mais ñooñu bu ñu defee dix ans loolu jotuñu ci réussir wala influencé wuñ ci benn yoon ñooñu waruñu continuer waat di wax waxu politique wala dañuy buggaat nguur c'est impossible malee ngi nii malee ngi nii amul taw amul amul ña ña ñun ngi nii chaque année ñu dem jéegaane tabaski jëli ji xar Mali pour ñëw andi pour mën a jaay ce n'est pas normal c'est pas normal di naan meew mais mais meew baax mais meew sax mënu ñu ko naan mais mm. meew mais te da di tuuri ay da di tuuri ay litres yi litres meew loolu loolu wax dëgg yàlla loolu xel mënu ko nangu donc moi je pense que ni vous tous vous n'avez rien foutu vous ne vous n'avez milliardisé comme je le dis souvent xaalis kese ngeen defal seen bopp yéen liggéeyu leen réew am na ñoo xam ne ñi dañu liggéeyal seeni i réew dee nañu seen parents yi amuñu daal seen doom yi seen doom yi dañuy liggéey. Mm-hmm. voilà vous n'avez pas travaillé. ou alors vous n'avez pas fait ce qu'il fallait véritablement faire vous vous êtes pas attaché sur les priorités voilà, dans ce pays voilà, te priorité yooyu nag xam nga lu tax du dox parce que parce que xuloo bi ak xiroo ngaayo bi ak euh, cacophonie bi mooy tax du ñu wax dëgg sénégalais yi moo tax gisoo ci ay su ñuy ay titre personnel rek la ñuy xulawee entre ñoom mais du ñu wax véritablement dans le fond quel est le problème moo tax doo gis du ñu ñemee ñëw taxaw di wax waxu programme kenn du ci wax il faut que ñu changer loolu il faut que dans le fond ñu waxante dëgg te képp koo xam ne da nga nekk candidat waxoo ci loolu hmm. suñu engrais bi maa ngi ñëw ci yéen suba ICS ICS di ngeen ñu jox suñu engrais bi te dañuy renouveler dañ koy renouveler ah. d'accord dañ ko nar a renouveler en 2024 le président qui va arriver concession bi jeex na récupérer leen ko comme ça dootuñu jëlati engrais moi je suis président de la République wala ma gis koo xam ne nee moom day récupérer ICS delloo ko Sénégal ndax dootuñu jëndati engrais bitim réew loolu suba dinañ ci wax te ngir yàlla wala suuli bés boo leen ko signé

wallahi doo leen ko doo leen ko doxal constitution yi indien yi dinañ fi jóge dinañ ci ñëw suba incha allah gën koo yaatal wax li nga xam te moom mooy jafe-jafe yi yooyu ñu intéressé ñun en tout cas le futur président il aura beaucoup à faire Alisson ndax li koy xaar fii bëri na lool si mu war a def il a juste ay courageux donc mi ngi noonu ñu jaajëfal bu baax a baax jox la rendez-vous demain incha allah Aliou Sow waxtaane yeneen pàcc waxtaane Karim Wade ak yeneen donc incha allah mu mel ni rek bu baaxee ñu daal jëli suñu euh, rubrique di sport